muy jógee këram maanaam di ñëw ci place de l'Obélisque lépp dafa taxaw lépp taxaw maanaam dem beeg dikk bi moo gallankoor mbooloo mu bare bare bari ñoo ko gunge yéen kaay gi ne na xale yi nag di yuuxu naan ko Ousmane Sonko yaay sunu yaakaar Ousmane Sonko yaa bari doole journal bi di Rewmi Quotidien nee na xale yi noonee la ñu gunge Ousmane ko jëlee ko këram ba fi nga xam ne nag mooy Colobane yéen kaay gi de la Témoin xëy fësal ci xët mu njëkk na yeewi askan wi gañ la pari de la mobilisation neexul ba neexul waaye nag yeewi askan wi am nañu doole mbooloo mu bare bari ay junni junni nit ñi ki dëmb ñoo fees si nga xam ne mooy place de l'Obélisque loolee mooy dëgg yéen kay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas de sala mooy leader yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ni dëmb yekk nañu musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky waaye nag Antoine Diome ak juróom-ñaari juge yi nga xam ne ñoo nekk conseil constitutionnel yéen kay gi njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na œil pour ji nag ku leen door fayu leen ndax nag Macky Sall xamul lu dul rapport de nee nag élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la nee ma élection député yi bu ci yew wi askan yu amul élection du am ci réew mi loole nag dafa war a leer ci bopp askanu Sénégal leer ci bopp Macky Sall ndax nag Macky sàll ci boppam dafa war a xam na du yàlla du yónnenta Ousmane Sonko ne Macky Sall nag jot nañu ay xibaar ne dafa bëgg nag nangu mairie bu Ndakaaru ci loxol Barthélemy Dias maanaam ñu tëj ko juróomi at sursis Ousmane Sonko ne Macky Sall bis bu dof dof loo ba nangu nag mairie bu Dakar bii ci loxol Barthélemy Dias bu boobaa nag danañu nangu romb li nga xam ne mooy palais de la république yéen gi dana Ousmane Sonko bi mu yëkkatee kàddu yu ni ki ca place de l'Obélisque xale yi daal naan ko ndigal la ñuy xaar ndigal la ñuy xaar ndigal la ñuy xaar journal bi nee na Ousmane Sonko na leen na xaar leen dinaa leen jox a yéen kaay gi ñu koy fekk fa Khalifa Ababacar Sall nee na nag jamono ji maanaam jële Macky Sall ci réew mi loolee farata la yéen kaay gi di 24 heures Ousmane Sonko ne na nag Macky Sall fukk ak juróom benn ci moo ko des ci bopp réew Sénégal waaye nag du si am jàmm jàmm de manifestation rek la ñuy dëkkee fii ak fukki weer ak juróom benn yi nga xam ne moo fi dese Macky Sall yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Habib Sy nee na Macky Sall mi dama yaakaar ne dafa am problème mu cerveau Macky Sall mi est-ce que ànd naa kalama kaddu yu Habib la ndax nag Macky Sall bu jàppee ne dana def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal ma ngi nax boppam te nag Macky Sall bi mu demee ca diiwaanu Russie nekk Macky ma koo Sall bam na tot ndax da koo wax na ko yow Sénégal ak ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal nga langaam minutes rek ci France France jàpp la otage yéen kaay gi ñu koy fekk fa dàmboo ca nee na dafa war a xam na ñun pare nañu ngir jàmmaarloo ak moom yéen kaay gi di direct news nee na mobilisation bi nga xam ne démb gis nañu ko place de l'Obélisque maanaam nga xam ne nag ñooy waa Yewwi Askan Wi li ñuy sàkk mooy démission Antoine Diome ministre de l'intérieur ndax nag ñoom Barthélémy na benn yoon Antoine Diome di kaay gii di Le Quotidien nee na démonstration de force démonstration de force moo am démb Colobane maire bu Dakar Barthélemy Dias doomu Sampou Dias me nee na nag Macky Sall damaa yaakaar ne dafay fowee xelama mbir mi sax man Barthélemy Dias ay reetaan la ma defaat ndax Macky bu jàppee ne yeewi du bokk ci yi loolee mooy ndax boppam te nag mbir mi sax ñun xam nañ lan moo koy réglé li koy réglé mooy mbedd mi te danañu wàcc si mbedd mi nag ba mu neex ndax nag Macky Sall loole la xama may muun a busoo ci yéen kaay gii de alerte nee na bu ñu waxantee dëgg askanu Sénégal ñoo amatul confiance ci Macky Sall moom may muun a busoo nee na nag réew mi bu tàkkee Macky Sall mooy responsable yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Moussa Tina nee na Antoine Diome Benno Bokk Yaakaar lay liggéey la exclusif nee na yeewu askan wi ak Wallu obtient la majorité populaire jamono jii kay mbedd mi yeewi la ànta la yéen kay gii di source a nee na mi nag yeewee ko moom jamono ji ay dem bu wàcc nee na Macky Sall sàcc la Cheikh Abdou Bara Dolly nee na Macky Sall sàcc katu suuf la yéen kay gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na Farba Ngom la yéen kay gii la témoin nee waa ana waa Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoom nee na ñu woon danañu manifester kaay gi di réew mi quotidien waa bennoo ñoom fan la ñu nekkoona waaye nag Sonko yàkk na musiba ak mbele ngaan Moustapha Niass Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Sénégal yi jamono ji sonn nañ ba maara de taali réew mi nag dafa metti réew mi di Sénégal metti na loola ndax Sud ko nee na njëg yëpp a cher location bi cher na ba maara de taali Sénégal yi dañoo tumuranke ndax nag essence baa ngi nii yokku na ceeb baa ngi nii yokku na suukar saa ngi nii yokku na ba maara de taali waaye tamit gis ngeen diwlin gi diwlin gi yokku na lépp a yokk te nag bu